Ndoye Bane est que togg na añ wala genre yooyu noonu donc tey loolu daf may indil li ñuy wax naan wala waroo dem fa te woowoon Ndoye avant avertir ko mhm. donc lañ daf may indi ñuy wax ni que ni Sénégal dëkku teraanga la dëkku dëkku euh, nu ko waxatee sax defante yu baax la ak yooyu noonu yëpp loolu de loolu loolu mooy suñu suñu way daal ñun ca loolu loolu loolu la ñuy bàkkee ñun ca Kajoor fu la añ fekk fa ngay añee mooy dëkk ñun loolu lañ xam kër Modou Fall mii su añ jotee su ma neexee jaar fa añ man man ma loolu ma jànge ci pire moom laa indi ndakaaru gii mm-hmm. loolu laa jàngal maanaam boolu gan dañ ko fay tey dama ne la tey ji orchestre bi suñ fa jaaroon suba dañuy añ te duma leen wax dara ba jox leen yóbbante ñu yóbbu ñu loolu lañ xam mm. yaaw am na loolu lañ xam ba léegi ñu ngi teg am na ñoo xam ne boolu gan ba léegi ñu ngi dama ne am na ñoo xam ne tey ji suñ la taajalee boolu añ laa wax ni man rek mën naa koo lekk te kër ga 15 personne nga fa. dëgg la tuuti la ñuy togg. Uh-huh. yooyu yooyu ñun xamuñu loolu. vous êtes appelé à sortir du Sénégal. déedéet ñun sortiru ñu man man gën a man. benn yoon man léegi yow ma xam benn affaire man benn yoon laa mos a génn Sénégal. <laughs> ba ma demee di déposer visa visa ba génn une semaine waa ambassade France di mu wër ci dëkk bi man fàtte woon naa ni déposé naa <laughs> man génnuma réew mi diggante Pire ak Ndakaaru laa yem. man li ma xam li ma jàng mais ne enracinement et ma fenn <laughs> eh, man fii laa nekk fii laa ma xam mais doy léegi nii sànq da nga ne yonent xëy na kon kon loo gis évolution dafa ci am évolution mooy mooy may daal a ñëw Dakar ma ma xëy vacances laa ñëw ñu daggal ma mburu bu toll fii loolu la kay déglu rek dama bëgg oustaz ñëw balaa oustaz di ñëw bi may soog a ñëw Dakar damaa xëy may dékk ñu daggal ma mburu bu toll nii <laughs> ma toog ñu dagg mburu bi may xool mburu mi man daal maa ngi xool mburu mi comprendre ba ma jëg saay ma ne damay ndékki ñu ne ma waa ndékki baa ngi di mburu ma ah. kaf may jooy noonu la ñuy def parce que Tamba xamuñu loolu gis nga dafa am dëkk ah. yoo xamante ni la fa nekkoon démb ba tey mu nga fa ah, waaw yéen nag yéen nag xam nga réalité yi du benn kër boo loolu nangu ngeen ko réalité yi du benn déglu ma ñun liñ xam mooy taaj bool bi xiif de waa Dakar lekkuñu dama ni <laughs> yaaw ñun liñ xam mooy taaj bool bi gaa yi wër ko Mhm. Camara Laye l'enfant noir noonu lañ ko yare ñi jàng Camara lii liir Camara xam na nii loolu lañ ko yare dëgg la jàppal bool bi yamal sa kanam. yow noonu lay def loolu sama kër noonu la ma bool lekk sama baay noonu la ma yare sama yaay yare ma noonu noonu laa yare sama njaboot. man sama kër fii sax ñëpp ci benn plat la ñuy bokk toog bi mooy Sénégal dafa am ñaari civilisation yu fi am soo seetloo. kenn xamul ay tubaab lañu. kenn xamul ay arabe lañu kenn xamul ay sénégalais lañu ay africain lañu ñii soo dee seen làkk dañ ciy dégg français di ci dégg araab di ci góor olof di kenn xamul lu ñu doon. lépp la ñuy boole loolu mooy suñu problème. tey ji soo demee <laughs> li tax ñi soo demee ci ci ci ci ci université bi euh, lu leen di jàngal ay Karl Marx ay Descartes ay kenn xamul la leen di jàngal. <laughs> ëllëg ku jàngal leen seen njàngum Serigne Touba bi jàngal leen njàngum moom El Hadj Malick bi jàngal leen li ma njàngum Baye Niass bi ñu xamal leen seen bopp la sénégalais est-ce que xam na boppam. Mm-hmm. mais jàmbur yi leen di jàngal ay mm-hmm. Molière ak yu kenn xamul. ñu leen di jàngal siis mais c'est universel. non non dama universel. c'est universel pour mu ne pour univers universel nag lu tax ñoom Touba bi duñ jàng Serigne Touba. jërëjëf duñ jàng maam alaaji Malick duñ jàng maam Baye Niass ñun ñuy jàng ay Molière ak Descartes yu kenn xamul yu kenn ñu <laughs> jàng loolu tax nag suñu doom yi suñu màggee complexe eh, na sa yaay surtout ñëw da nga koy woo di di ko tàggu ma ne damaa bëggoon a ñëw si kër si dëgg ci kii bokk luy bi manque de savoir vivre ah. manque de sa yaay war a ñëw ca kër ga nga naan ko da ngaa waroon a wootee jërëjëf sa yaay Moodu moo du man ne ah, nag maa woo. ci yow ah ñëw sama kër. il faut avertir. ah man de dinaa may ma damay daaneel fii. su ma lekkul ñu dem naa ko su yow moom sa wax yow boo waxee rek mooy tënk ko ñun ñun moo du mm. tey nit jékki-jékki rek yow niñ la xamee ak ni ngay dundee ak sa esprit sa état d'esprit voilà yëfi tubaab daal ngay dund yow bañ nga ko ba sa ah. kër. yow ni nga koy kiiyee maanaam kenn du fa ñëw. c'est ça kenn du fa dugg. doo sol yëre dimanche. yow da nga ah? ah? waaw nee moom lool la wax fi. du sol yëre dimanche bu nekkee jabaram du xam nga kon loolu réalité tubaab la du réalité sénégalaise. parce que tey <laughs> bu dee Sénégal nit mun na débarquer à tout moment sa kër du la woo sa sœur sa frère sa yaay wala tu vois donc yow Modou style de vie bi nga am. est-ce que tey man mun naa jékki-jékki rek ñëw nekk aux alentours woo la ne la Modou. non du man sax <laughs> bu doon benn buuba voilà ñëw fii pare pare ne day jaar jëlal buuba comme une personne lambda voilà. c'est quand même. ma yeggali. ñëw rek jékki sa kër ko mu dugg. ma ko bàyyi mu dugg. c'est ça. non <laughs> c'est que yaa bi sax. xam nga <laughs> gis nga man pour ñuy seetaan la. gis nga man. Modou nga ne doo ko bàyyi mu dugg. man mu ñëw sone nga xam ne moom la looy def. mais pourquoi muy ñëw sama kër heure boo xam ne préparé wu ma ko man. man aw ma wax la la je suis je peux recevoir. parce que defuma la ko. nit da ngay dëggu. teraanga bi nag foo ban teraanga. loolu manque manque de savoir vivre mooy jékki-jékki rek ni këndëng waaye nu mu leen dama jaaroon mais je te dis ful camp dafa la ubbil. waaw ah, mais Moodu. amul benn damay expliquer. man man ma ne la man yeewu naa fi bës. waaw xaaral mu dama ko wax mu yóbbaale su doon moom lu muy def maire yo man Pire laa dëkk. te dinaa di nelaw dégg ay ñuy wax sama biir kër ba ñëw fekk naa fa lu tolloog douze maires yu jógee Pire. ay maire yu ñëwoon benn ngénte ci koñ bi ñi ñu kër ñoom doy baana nga ñu jaar dafa toog ca saal ba ñu yee ma yow Moodu su doon yow nooy def. ñu yee la du dañ ma yee parce que ay ay maire sama ay moroomu yaay yu jóge Pire la ñëwoon dégg ni Ndoye Bane fii la dëkk ñu jaar fa di ma di ma di ma leen di wax la. su boobaa yàlla bëggul koy fen maa ngi ci biir. waaw yow yaa cultiver ah, relation boobu <laughs> ak ay tubaab laa nekk yéen a ko séq comme mais man séquma ko kenn déedéet yow daal luñ la dul luñ la du loo dul defee daal bu ñu la ko defee. déedéet man man noonu laa mel. Eh. maa ngi nekk na ba kenn ni ma lislaam waxul li nga wax amul. Ah.